voilà euh, chers amis téléspectateurs de Light TV comme vous le voyez euh, Père Kader euh, moo nekk di joxe li nga xamante ni moo nekk trophée homme du match bi euh, Père Kader je pense que ñëpp xam nañ ko mu nekk euh, le joueur emblématique de l'ASC Diambar il a fait le beau jour de GFC de Guédiawaye nekk na en même temps joueur woon ñaay à l'époque voilà ku ne xam na ni ñoom ñoo fi andi woon moo nekk génération bi fi andi woon phase nationale bi ci Guédiawaye avec l'ASC Diambar sans oublier les Omar Boundaou, Pape Camara, voilà. Euh, Lamine Kone, Bamba, voilà. Nous avons cité nous bari, voilà. Nous euh, bayi ko mu joxe euh, trophée bi, wala ñu def euh, prise de photo. Voilà. Voilà, ñu jël photo. Voilà, je vous rappelle que euh, ASC Yakar a battu l'ASC Chosan sur le score de un but à 0, euh, pour le, les tournois de, des amis du football piquinois, un air de famille. voilà directement euh, père bu ñu mënee am say impression rapidement voilà. ah euh, Abdelkader Fall euh, démarrant à Guédiawaye de la zone 3 ancien capitaine de la Les Diambars avoir joué à à même dans l'équipe des Niayes avec les LH des grands des Niayes là la donc je ne je ne suis que ému par cela euh, je ne fais magnifier ce geste. parce que c'est pas donné à n'importe kii nga ñëw ñu invité la woo la jox la nga joxal ay kii bon donc reconnaissance Poubelle rek moo am loolu donc di magnifier geste bi à travers euh, bokk xalaat euh, bu géejawaay nekk kontaan trop si deux deux AFP Pikine ñu regrouper les amis sportifs donc euh, di xalaat ne rek ne ouverture ngi fi nag ouverture am na tey quoi de par ma présence ouverture am na fii ndax euh, nous comptons faire euh, vraiment en collaboration avec deux AFP nous euh, vétérans de la zone trois de Guédiawaye ñu am ay affinités yu gën a kii donc dama magnifier geste bi rek ñu gis ma ci loo bi rek jox ma donc sport rek moo mën a joxe lii et je m'en réjouis je m'en réjouis vraiment ah c'est à l'honneur de de tous les vétérans de de Guédiawaye et surtout de la zone trois merci. balaa ngay dem euh, je pense que seetaan nga match bi tout à l'heure euh, bi doon daw diggante ASC Yaakaar ak ASC Cosaan naka nga gisee xale yi léegi en tant que euh, expert de football. donc tout au début il faut que mu am ay parce que rien encore préparé les équipes ce que je vois ne mooy booy dañuy wane donc football bi dafay am latence dafa yéex donc damaa xalaat ne bu demee nag ba ñu gën a miin nekk ci phase bi dina dina huiler mais vraiment j'ai de bons vraiment mais mais chacun sa parce que début bi la ko nekk ngi wane xam nga rek nawetaan ak ay affaire am ku nekk ngi wane la nga man en attendant euh, échéance yi commencé mais li ma fi gis daal gis naa fi ay talent talent de talent pur à Pikine vraiment de talent pur à Pikine. ok doyen bu nekkee am nga message booy lancé à l'endroit de la jeunesse de Pikine et de Guédiawaye euh, euh, en l'occurrence de la banlieue message bi lan lay nekk. donc message bi mooy tout jeune venir s'intégrer dans le football ñëpp dañu am ay talent bàyyi vagabondage yi. bàyyi délinquance bi passer au football ñëw football parce que vraiment gis nañu taraangay football yi donc quiconque doit s'y mettre quiconque doit s'y mettre bàyyi ni yore jikko jikko ji rafet bàyyi errance bi bàyyi délinquance juvénile bi euh, euh, bon considération envers les anciens ñu won la yoon wi nga mën a dem donc loolu rek moo fi am talent yi caché na euh, ñu ngi seen biir mais sagesse bi moo des sagesse bi sagesse bi mag ñi war a indil xale yi bon booloo leen dimbali leen pour ñu dem de l'avant parce que ñun tamit ñu ngi woon dans le sport ku nekk xam nañu ni ñun niveau bi ñu waroon yeggu du lii nawetaan la léegi la lañ ko war a def football bi léegi nawetaan man tremplin xale bu ci def un an deux ans dem école dem sa yoon bon loolu daal mooy sama kii fi mu nekk sama lutte voilà merci.